sant yàlla bu baax tey gërëm yàlla ndax nit dana njaboote ay nit te du nekk ci seen xol yi comme nii waaye tey ku fi ñëw di nga xam ne président njabootam ngi bëgg nañ ko ku fi ñëw di nga xam ne président Macky Sall fa mu nekkoon ci xolu Sénégal ba léegi mu nga fa nga def déclaration ci sa sa ngor ci yar ba ci teggin ba ne man mi di président Macky Sall am naa droit def troisième mandat waaye du ma ko def ndax sama kaddu laa waxoon askan wi ne du ma def troisième mandat kon ngàcc ngàllama président mais na xam ne xol yam nekkoon ba léegi mu nga ca na xam ne xel yim nekkoon ba léegi mu nga ca na xam ne ñu ngi koy déglu bu ne wow na ñu ne kong bu ne weex na ñu ne tal bu ne ñuul ñu ne kuk ñun ay njabootam lañu li nekk ci ñun moo ko def ci moom ñun xamuñu kudul moom amuñu kudul moom kon on est à sa disposition nu mu ko bëggee rek noonu lañ koy defee may ñaan njabootu benn bokk yaakaar gi ñi yaakaaroon président gannaaw yàlla ak yonent bi na ñëpp ànd nekk benn toog di ko déglu lu wax rek ñu defal ko.

mënul génne def sorti bu rafetam ñu nekkaan encore nekk ci suuf defaat lu ñaaw ñi duñu ay nit daal wax ma ñeneen ñu nitee nee naa la réew mi yàlla du ko jox ku nitewul ku nitee la koy jox. rëcc wuñu li ñu doon ànd ak président fu ñu joxoñ nag. comme ni Moussa fu ñu joxoñ foofu la. foofu ñu jàppaloo. moom la ñuy jàpp te fu mu koy gagné incha allah on est plus que déterminé à partir de aujourd'hui nag dañuy déclaré ne président Macky Sall kenn dootu ko laal ku ko laal ñu jëflante koog yow. amul parce que kenn amatul loo koy wax. ku ko laal fekk ñu fi tey ñu taxaw. défendre ko jusqu'à dernière minute dañ koy défendre. ñu ngi alerte ñëpp nag bu ko kenn laal. du du baat loo ko wax dinañ ko tontu dinañu xeex dinañ ko défendre on est là pour le Afrique yëpp dañ ko war a màggal parce que tey jii nii Macky Sall gën a dundal démocratie Afrique mais rawatina fii ci biir Sénégal parce que ñëpp gis nañu ginaaw gars yi demoon nañ sax ba bëgg a yàq suñu démocratie bi sax mais Macky Sall dafa taxaw temm mu ne damay gën a dëgëral démocratie kon tey jii nii lu mu def c'est être courageux pour mun koo def te ñun jeunesse Sénégal luñ koy ñaan ñun bu ñu sañoon na toog ñun bu ñu sañoon le président Macky Sall na toog parce que ñëpp gis nañ fi luñ liggéey ñëpp gis nañ fi luñ fiy liggéey ñoo ngi ci ginnaaw DG Souleymane Ndiaye tey jii nii moom moo fi taxawoon depuis le 27 août mu ne Macky Sall on vous soutient pour votre second quinquennat kon tey jii nii dina métti trop ak lépp lu mu fi def ñu ngi seetaan président Macky Sall di dem noonu kon mbokk yi dama yaakaar ne tey jii nii c'est normal ñu génn daal di koo tàccu mais Afrique yëpp war nañu koo tàccu Sénégal yëpp war nañu koo tàccu di gërëm le DG Souleymane Ndiaye DG Souleymane Ndiaye ñu ngi koy gërëm muy directeur général SAPCO ñëpp gis nañ démb lu mu wax ñeneen ñun ñoo ngi ci ginnaaw Macky Sall tey ñoo ngi ci ginnaaw Macky Sall ëllëg tey jii nii Macky Sall ne àndal nag diw moom la ñuy àndal Macky Sall bu ne diw laa bëgg ngeen ànd ak moom dañuy ànd ak moom tey ñun Macky Sall la ñu bëgg moom la ñuy àndal fii ba 2035 Macky Sall bu ñu joxeñee diw ñu ànd ak moom tey Macky Sall lu mu fi liggéey Sénégal rawatina Afrique ñëpp teg nañ ciy bët kon gàcce ngaalama président Macky Sall ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax nag rawatina ñun ndaw Sénégal yi ñu ngi koy gërëm Macky Sall di gërëm aussi le DG Souleymane onze billah bismillah xanaa di sant yàlla rek di sant yàlla ci ku baax ki ñu mujj yox nax bu fi pétrole feeñee jamaa feeñ fi gaz feeñ mi c'est grâce ak ki nga xamante ne day xalaat di topp njëriñal askanam à travers son discours nag ñëpp xam nañ ne maanaam jàmm moo gën ay Macky for the future foofu laay yem Macky pour le futur merci jom ci ngor parce que ci dëkkil ngor la tàmbalee dëkkil ngor ba jamono jii nii kon la nga xam ne moom moo taxoon mu jug naan dekkil ngor ba léegi mu ngi dekkal ngor jamono jii nii. bon bu ñu déggee décision bi ñun ñi nga xam ne ñoo ànd moom ñun mën nañ wax ne ay taalibe lañ ci moom rek ndax sëñ soo su waxee lu ñu mën a def mooy lan jëfee ndigal la mu wax di jël na décision ñun dañuy ànd moom ci décision bu mu jël. parce que su ne woon sama troisième candidature te yoon may ko ñun dañ ciy ànd moom mais comme que moo ko li mu bëgg moom la ñu bëgg. lu mu bëggul bëgguñu ko ñun président Macky Sall lañ gëm moo ci moom lañ tàmbalee politique moom moo ñu xamal lan mooy politique te jàngal nañu ngor jom ak fula. bon ku ñu yaakaar ñu ngi xaar ñu ngi déglu ñu ngi déglu duñu ñu prononcé gum parce que ay tur yu bari jib na mais l' essentiel ñu ngi ñaan yàlla ki nga xam ne moom la ñuy tegal na nekk koo xam ne am askan yu am nañ yaakaar ci moom te suñ ko tegee incha allahu rabi yàlla suñu borom mayat ko ndam ba ñu conserver le pouvoir en jusqu'à 2035 parce que suñu horizon horizon 2035 la. man maa jinne Pikine te man ku ñëw war nga maa jël waa Leral TV maa jinne Pikine te jinne Pikine kenn du dugg Pikine teg sa wax ci jinne ji maa jinne ji jinne du ma jommal ndax nag président tubaarkàlla moom laa bëgg réew mi xam nañ maak président Macky Sall man lu ma waay wax te na xewoo ma Macky Sall bëgguma sëñ Bambaye sama sëriñ waaye Macky Sall laa ci bëgg dama ne tubaarkàlla macha allah président ñun moom la ñu bëgg ànd ak moom lii nga gis tay jii lii nekk ngeen na nit tiimale nu nuy wax rek war ngeen a xam ne président maskaraat Macky Sall askan wee ko bëgg ragaluñu donnu koy ragal ku ragal du teel a ñëw day bàyyi ba guddi mu dox bëccëg la ñu génn ñëw taxaw sunu noppi ji nag ak patt gi nag dug ragal samba booy ak borom cak day may ci borom baatu neen kon tubaarkàlla lii rek la waaye yal na yàlla def jàmm. macha allah ñun ay jeunes yi ba keraa dee dëkk Abdou Karim Sall AKS jàmbaari Mbaaw nekk na ministre nekk directeur ARTP nekk meeru Mbaaw si askan wi lay xëy saa yeewoo ñi maki mere nag Abdou Karim Sall bokk ci zéro ñoo ngi nii Macky Sall Abdou Karim ba jéggi fer ñoo ngi nii AKS. président Macky Sall la Abdou Karim Sall nag président rek lay topp ñu it président rek lañ lay topp xoolal Karim président bu demee ñu dem. mais yow Sonko ci yenn région lay bokk. xalal non dama ne. non déggoo ma de. amul lu muy bokkee. xalal Koura Fanta Koura Fanta Mbaye Koura Fanta yàlla dafa def ni du bokk parce que bu dee Khalifa dina bokk bu Karim dina bokk mais Koura du bokk. ah non kuréel mënu mënu bokk rek tànk moo fexe na ba jéem a déstabiliser sa pays moom mënul bokk. mais ñoom dañoo man maa la waata si yàlla nii man nee naa la si sëñ Saliou laa gëjee jooy président Macky Sall moo ma jooyloo ak jooy yi ma jooy président Macky Sall barke salaatul fàtte du bokk barke salaatul fàtte du bokk na def troisième guerre du bokk si nga suñu pétrole gaz duñ ko kafe. ma ne la ndeysaan en tant que si se gaynde Macky Sall euh, ñu ngi fii pour buntu palais bi euh, pour soutenir son excellence pour di ko gën a féliciter li nga xam ne tey bàyyi naa ko ak sénégalais yi si di ñoom si li nga xam ne tey son excellence président Macky Sall ñëpp kontaan nañ barki Serigne Touba ku gis lii rek xam ne tey dëgg fierté moo am solo gars yi ñëpp kontaan nañ président Macky Sall jeunesse kontaan nañ ñëpp kontaan nañ ah si Cissé gaynde Macky Sall maa ngi wax ak waa presse gën a kontaan Macky Macky 100 pour cent tey lii dafa doon fierté sénégalais yi lii mooy wan ne sénégalais yi tey doyaluñu si président Macky Sall jeunesse bi lii mooy wan ne tey président Macky Sall lañ àndal mention spéciale kontaan nañu ak son excellence président Macky Sall. li ñu koy ñaan rek ngir yàlla nañu bàyyil koo xam ne bu sooba yàlla doy na ko pour réew mi koo xam ne mën nañu ànd ak moom mu gën a yaatal pour gën a jàppale jeunesse bi kontaan nañ bu baax a baax son excellence président Macky Sall lii fierté la yi dafa fees lii ku ko seedaan tey barki Serigne Touba sa dafa war a daw président Macky Sall mooy Sénégal président Macky Sall mooy teraanga Sénégal président Macky Sall mooy askanu Sénégal président Macky Sall moom la réew mi bëgg moom la réew mi gëm koo koy son excellence kontaan nañu en tant que Khadim Cissé Gaynde Macky Sall di leen wax ne ñun président la ñu xam xam ñu ku dul président Macky Sall son excellence lañ xam li ngeen gis nii président Macky moo ko moom maro bes kon son excellence kontaan nañ tey Sénégal ñëpp a ngi fi jeunesse bi ñëpp génn teeru ki nga xam ne mooy président Macky Sall waaw kontaan daa parce que li ma gën a métti sama àddina rek mooy président Macky Sall li mu bàyyi ak askan bi parce que président Macky Sall dafa waroon nekk candidat 2024 mais comme moom loolu la bëgg ñun nañ ko koy nangul gunge ko si ak ngor bàyyi ko ak njabootam parce que tey sama teewaayu ak fii président Macky Sall fu nekk dañ fay dem wax dëgg yàlla kontaan nañ bu baax si lu bon loolu moo tax moom mu bëgg a tuumaal nit ki mais loolu ñun duñ ko bàyyi mu seet parce que nit ki bu fekkee ne am nga président boo xamante defar moo ko tax a jóg la def yaru bëgg suñu réew bëgg defar suñu réew moo tax mu renoncé loo xamante ne mënoon na ko def moom mënoon na am troisième mandat bu fekkoon conseil constitutionnel parce que moom moo fi nekk su ko waxoon moom mënoon am wala mu briguer pour def troisième mandat mais defu ko waa jéggalu na dëgg la mais c'est trop tard gis nga wax fetal la mais man président bu ko neexee mën na ko baal de mais man Birame Souleye man mënu ma ko baal parce que daf ñoo fekk ñuy jooy suñu nakar te noppeeguñu daf ñu fekk ñuy jooy suñu nakar te noppeeguñu. mu ñëw mais lan moo tax jooy li normal ndax euh, ku ñaari mandat la a def. non de cinq ans ñaari mandat na si. Sall ngaari lam tooro Bourguédé président bu mel ni Macky Sall réew xaaroon ngeen loolu ci moom décision bi mu jël. musuñoo xaar lii ci moom Macky Sall musuñoo xaar lii ci moom ndax président bu tëddee njaaxaanaay la te xam lu na lépp Macky loo ko wax neex na ko Macky Sénégal a ko ñor Macky ngi doxal senegal teg na travaux yi ku yàq mu defar kon sénégalais dañoo waroon a xool nag yuuxu nag dina jëf ko foogeewul Macky rek la ñu bëgg moom la ñuy topp.